بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الفاتح الفاتح والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالعمل سيدي أحمد بن محمد وعن سائر خلفائه وباسم كافة الأسرة نحييكم جميعا فنقول سلام kàddu di ko jaarale ci jiital ci Cerno Muntaga ibnu Makki teew teewal usra omariya njiital Sëriñ Bachir Tall ayyadahu llahu wa nasarahu ci njabootu sunu sëriñ ñun ñëpp ci alxaaj Omarul Fuuti kàddu gi nuy yëkkati nu ngi koy jéggalu ci tiim gi nu ko tiim di wax bu dul ndigalam du nu ko sañ nu nuyu ko ziyaar ko masawu ko ziyaaraale kilifa yi mu teewal ndax ku ne xam na ni kër Seydil Hadj Malick bu lëjee kër Cheikh Oumar ñoo koy lijjanti kon bu nu ko fi fekkee cër ba nu daan gis sunuy kilifa sunuy bàyyi di leen ko jox bu nu ko fi fekkee moom lañ koy jox ko bu nu ko nuyoo nuyu nañu ci jotaay bi ku fi teew rek te bokk ci ku fi rek ñu ngi lay nuyu toppal ci kilifa yi Sëriñ Mansuur Lo mooy mag ci ñii nga xamante ni tey yàlla ngi dogal Sëriñ Pape Abdou Karim ak rakkam yu yi Sëriñ Ahmed Sëriñ Cheikh Sëriñ As seeni jigéen yi ci kër gi Abdou Fall Madi Aïssa ñoom ñëpp sunu wayjur yi ci biir kër gi tey ñoom lañuy jotalal seen kàddu mu nekk kàddu cant ndax ñu defal rek nga góor say lex ni daa ko yeyoo wax nañ ni baaloo la moo koy def waaye boroom xel bu ñu ko defalee te ko ko defal bu sañoon mën koo bañ a def nga ni jaajëf wàññiwul dara ndax jaajëf wax nañ ni ku jëful doo ko dégg ña jëf ñoo koy dégg ñu jotal nag kàddu ki fi waroon a teew fii di sëriñ Papa Malick Sy bu cheikhul xalifa bu cheikh Seydil Hadj Malick fomm ak a fomm waaye bu amoon li ko gënal fii moo fi ñëw ndax boppam rek moo ko fi doy ngàntam rek la joxe bu nu joxee ngànt li feeñal cant jëmale ko ci kilifa yii fi teew jiital ci sunu gouverneur ak membre CRD wala CDD yi nga xamante ni ñoo fi daje te saytu bis bi jotal leen it cantu kilifa yi ndax genn golo gudd na waaye lu ca dal borom yëg te wax naa fii daaw ni njabootu soxna Astou Sy Malick njabootu maam Roqee Njaay sëriñ Babacar si leen fii booba njàmbur yombul neexul mu seede seede bu kawe seedeel ko ku mu am ne aa njàmbur dey danaa leen sant ni njàmbur dey Babacar bu amul woon lu dul xottu gerte fayal la dana ko bokk ak waay ndax dama leen dénk sama onk ñu dénkoo ko muy ak sama njaboot Seydil Hadj Malick moo ko ni woon nataamu fu muy dem di fa toog xaar fa ndigalam mu tudd ko ndar mu ni ko ndar dafa sori mu tudd ko njaambur mu ni ko njaambur ay mag dañu faa nekk mu tudd ko tëgéej mu ni ko mu tudd ko ndakaaru mu ni ko ndakaaru sama liggéey dafa noppeegul mu tudd ko cees mu ni ko cees daf maa jegeñ ba mu ëpp mu tudd asbaabul futuxaatam ci wàllu wut gi mu doon wut yàlla mu ngi amee ci pays yu tege waaye moom sëriñ Babacar si moo wax ni ndar ga ma dëkk ndar ga ma أهل النار فمسكني فيه لدار النار Je suis Saint-Louisien, pure souche. Bobo dëkkuwaay ak boobu appartenance moo ko nangul bobo. waaye daf ni Louga gëma dëkk parce que fii le dëkk dooba njàmbur dénkoo ko def lu leen war ci moom moo tax sëriñ Pape Malick wax ma ni ma bu ma ñëwee bala maa wax kenn naa waxal cantu sëriñ Babacar ci muqaddam yu baax yi nga xamante ni tey seeni njaboot bu ñëpp ñëwul ña ca ëpp solo ñëw nañ ñaana leen yàlla yal na leen yàlla fay sampal leen teranga ak sutura sàmm seeni njaboot te yeggale leen mébét yu zaahir yeeg yu baatin mottali leen ba la mag ña dooroon njaboot gi des yeggaleel leen ko ci sago yeggaleel leen ko ci ndam yeggaleel leen ko ci bépp tawfiq tabarakallah nu